léegi ñu ñëw euh, ci condition détention bi néeg ba fañ la dencoon. voilà néeg bi ñu ma dencoon soxna si dafa dafa comme li ma li ma la wax noonu ci gendarmerie. Mhm. néeg bi ma nekkoon ni dafa amaat ay euh, ay façon enregistrement yoo xam ne dañ ko def ñoom préparé ko lu yàgg. Hmm. waaw lu yàgg sax daf may yéem sax euh, daf may yéem. enregistrement samay jaar-jaar yu bëree bëree bëree bëree bëree bëree bëri kon yàgg nañ laa topp comme yàgg na lool ay ay ay at yu yàgg la <laughs> am na ci yuñ ma tegal yoo xam ne bi biñ ma koy bi ma koy déglu dafay ñibbiwaat ay weer mille neuf cent quatre-vingt-treize hmm? waaw quatre-vingt-treize quatre-vingt-quatorze jamono boobu ci la ci laa doon dox pour ñu créer eh, jamaatu ahlul Qur'an al karim wa sunna pour def suñu daara yi benn mbootaay hmm. yañ ci daan def ak yëpp ma koy tegal samay conférence surtout nag conférence yi may def sur la laïcité et sur la franc-maçonnerie mondiale di ca teg nag kàddu yu gën yu ko gën a ñaaw loolu da ñu lay te kon psychologiquement hmm. beneen bi ci gën a yéeme mooy néeg bi dafa amaat euh, gannaaw enregistrement yooyu xeetu euh, yoo xam ne dañ ko dañ ko dañ ko jokkale ak néeg bi saa yu leen neexee rek ñu pomp ko ci biir néeg bi. xeetu lan kenn hmm. xeet yu bon a bon a bon yoo xam ne. mar détaillé. genre tuyau moo fa nekkoon kon. déedéet doo doo mën a xam fu muy bàyyi ko. Hmm, da ngay jékki rek xet gi jolli. jolli ci biir néeg bi gas ko del bi ma nekkee ndar def nañ ko ba jour boo xam ne weñ yi ak seen bopp dañoo dee ci biir néeg bi bëri. Hmm? waaw bi bëri setee ma xool weñ yi ñu ngi ñu ngi paam. waaye nag euh, comme am na direction ma woolu directeur mu ñëw astaghfirullah dama ko woolu ñu ne ma dafa tukki hmm. nekku fi ma weñ yi yëpp dajale ko ci benn AGT teg yendu weñ yi deewaat deewaat ba ngoon ma delluwaat balewaat yëpp defaat ko ci AGT teg le lendemain weñ yi gën a dee hmm. te booba yow xet gaa ngi lay xeeñ waaw maa ngi ci néeg bi xet gaa ngi dolli. xet bi xetu mu lan lay nuru. kenn xamul ban xeetu xet la xam naa ne moom xet bu ñaaw la bu bon la boo xam ne dañ koy pomp ci néeg bi bi bi daj ñëwee ca gannaaw ëllëg sa ñu woor ma ko mu ma génne weñ yi yëpp woon ko ko hmm. sàkku ci moom nag ne ko weñ yi dama bëgg ñu yóbbu ko def ko ci laboratoire seet ba xam la moo leen rey hmm. mais ba fii ma toog ak yow dara amul suite ñoom may déglu bu baax xam nañ ko booba wàcc naa ci guddi gi wàcc yoo xam ne am na benn détenu boo xam ne maa ngi moom ñoo fa bokkoon nekk hmm. ñoo takkaloo néeg bi hmm. man rek ak sama néeg waaye hmm. moom mu ngi nekkoon takkaloog man beneen néeg <coughs> sunu xale la bu ñuy wax Baye Saliou njaay euh, wàcc moomu dal ci sama yére yëpp moom lañ moom la moom moom ko doon fóotal moo tax kooku moom nekk na ci benn témoignage témoin boo xam ne bu bu bu bu pataan hmm. euh, bi docteur bi ko weñ mu ne ma moom lii daan xamut naka la xamut xamut ci dara. Hmm. man nag xam naa ne euh, mën na nekk mën na ñàkk a nekk mën na nekk ndax mën nañ am. ay éléments yu leen di defal luñ bëgg ci biir prison bi ci directeur du ko xam. du ko xam. Hmm. kon loolu c'est bien possible. yow da jàpp ne dañ la doon bëgg a ni ñu ni ñu ni weñ yooya deewee. amuma ah, ci sikki sàkk man. xet na la. ba mu ëpp bi ne ma est-ce que du woon fi nga taxaloon nii dafa am euh, douche douche boobu mën naa am xet gi mooy ñëw mën na ko douche mu ne ma mën na ko weñ gi foofu la ñuy dund. Hmm. weñ douche rek la bëgg. waaw xetu douche da reyul weñ moom. ma ne ko xetu duus rey looy mu ne wax nga dëgg de yéeme na daal loolu nag bokkul ak euh, torture beneen boo xam ne ay wax la yu ñu lay wax ngay dégg di la saaga foofu laa moo a gisee ñoo xam ne ñoom saaga rek la ñuy def. ku la doon saaga leen a gis. ah doo leen gis. déedéet dafa am benn communication boo xam ne ñoom ñoo ko préparé néeg bi diggante néeg bi ak beneen mbooloo boo xam ne mënoo leen gis. Hmm. waaye yow loo wax ñu ngi koy dégg ñoom lu ñuy wax yaa ngi koy dégg. Ah? waaw du wax bu ñaaw bu sa xel daj rek. Eh, daf da nga koy dégg moo tax bi ma génnee <coughs> gis euh, whatsapp yi xew réseaux sociaux yi ñu ciy saaga ay ay responsable laa ne waaw mbaa lii du ne fay fayu goo xam ne yàlla moo koy fayul ay gaayam la hmm. ndax danaa bu ma génnee la phénomène non ci biir sax le phénomène Assane Diouf xew hmm, hmm, ndax dégg naa Assane Diouf moom moom itam daanaka ci sama mbir la doon wax di ci révolté ndeysaan di ko ñaawlu ba ñu mujj ko yàqal liggéeyam jëlee ko Amérique andi ko ba tey mu ngi Sénégal. Mhm. taxé ko terroriste. ma ne waaw mbaadu saaga yu ñaaw yi ma doon saaga ci biir euh, barab ba moom la yàlla jël ay xale samp leen ñoom itam ñu taxaw temm rek pour delloo saaga yi te yëguñ sax ne xale yëguñ sax ne ñu ngi may saaga waaye mbirum suñu borom rek ci la soxna si. waaw imaam ba nu lay saaga ak di la wax wax yooye yow loola noo ko dundee. kilifa gu toll ni yow. Hmm. loolu man ni ma ko doon tuddee rek benn ba ci ñëpp mooy nattu la ñaareel bi mooy euh, bëgg nañ la torturer psychologiquement. psychologiquement waaw pour nga nga perdre sa sa connaissance. Hmm. mu ji soppeeku ab dof. mosoo craqué mosoo dem ba sa xol jeex ba nga sës. jeex na voilà. Hmm. fekk na nag xolub jullit moom dara mënu ko jeexal. mosoo craqué kon yow mosoo dem ba yëf yi daal jàpp la. déedéet déedéet amuloo ko faal dafa may def sax man. Hmm.